Ah, basse. Oui, ça va. Je vais bien. On peut allumer là. Tu vois quoi? Oui, ça va. Salut les gars. Radio Wow. <laughs> ben Adams. Ouais, mais non, là. jërëjëf jërëjëf gaañ waaye oui waaw épingle ko gis nga ko waaw waaw maa ngi direct ni boo mënee def en rouge la waaw boo def en rouge la mi ngi noonu eh, affiché ko gars yi gis ngeen lii mus ngeen gis lii yaa ngi ci soma bi di Je comprends pas. 嗯，嗯。 Ya, da de faydalar nu yen yap. Ouais, Marem, tu Facebook, ça va Garcelle. Mm-hmm.

waaw di rafetlu seen teewaay quoi jaajëf waaw Galsen waaye citron miel pour waaw mais gis nga ko nag léegi c'est bizarre quoi ngay soj quoi ngay soj quoi waaw tu vois hein c'est extraordinaire quoi waaw doo comprendre la waaw jaajëf waaw mais dara dit quoi partagez le quoi tout va bien ça marche bien quoi gagne waaw ok Je ñu ci combat bi xam nga ñun xeex rek xeex ba jël ko fi rek ba ko fi rek waaw amul amul conférence de presse en bas conférence de presse en envoie point de point de presse en envoie sitting en envoie marche vive la révolution fi, résistance xeex rek xeex rek ñun mom lañu ñu gëm xeex rek xeex rek moo xam ne xam dafa jël famille bi rawale ko ñoom Marème Faye Sall gars yi dañu daw ñu ngi Gambi, xam nañu fu ñu ne ci Gambi. <laughs> waaye foog na ñoom dañu dugg foo xam ne ñii ñi xamuñu ko on connaît très bien xam nañu fu ñu ne ci Gàmbi voilà salam alaikum donc euh, d'abord Malik, Patriot TV nous leen di de di leen ziar di aussi nous koy ni la ñi panel bi leen di ziar di leen ko sakku ci di ko ñaanal diaspora bi ak sénégalais ni mhm, mhm. donc euh, merci beaucoup pour l'info Suzanne donc. Euh, sant da nga jënd kër yi ngeen laaj ko quoi comme ça ngeen protéger seen life bi moo gën quoi euh, di nuyu sénégalais yi nekk ci réew ma patriote yëpp di leen ziar euh, di ñaanal jàmm Sénégal ak sénégalais yëpp ñiy feebar yàlla na leen yàlla may wér fëgg seen bopp ñu jóg ñibbi seen kër ñi nga xam ne ñu ngi ci kaso yi moo xam dañ leen attee les les détenus politiques là ak ñi nga xam ne duñ dugg ci yalla nañ leen libéré ñom ñëpp mhm. Mhm. Mhm. ouais donc euh, euh, de toute façon Babs Babs TV ouais ils vont s'en ils vont s'en occuper ne t'inquiète pas pour ça waouh donc euh, di leen ziar euh, di ñaanal patriote sénégalais yépp yëpp jàmm ne combattant yi nga daanu ci bi ngi leen di ñaanal euh, ñëpp na président Ousmane Sonko jàmm di wax sénégalais résistance il faut que ñu préparer xeex rek hmm. ko saxal moo ko fi jëlee quoi parce que dafa tëx tant que dumooloo loko du fi jógee alors tous ces crimes là yu mu def ray ñu mu rey yëpp foog na ni day day nul quoi <laughs> nax na boppam quoi waaw waaw parce que ñoom actuellement fu il sait pertinemment que tous ces crimes là seront seront réglés il va payer lui avec ses hommes ça c'est sûr et certain maintenant fi di ñangal force restera à la loi nous allons voir si force restera au peuple ou bien à la loi alors je voudrais dire aux Sénégalais que nous devons nous préparer à dégager ce, cet apprenti dictateur là criminel là au Sénégal quoi qu'il en soit quoi qu'il coûte le prix qu'il coûte il faut que nous organisions wu parce que gis gis ngeen lacrymogène grenade lacrymogène Sénégalais yi am ngeen li ngeen xam ne moo gën a efficace ci grenade lacrymogène jël leen leen kii rek karité karité karité ngeen préparé ko oui préparer une ko qualité ngeen le maximum ngeen xool du leen mën de grenade lacrymogène du leen mënal dara qualité du leen mën c'est plus efficace te xam nga ñoom seen stratégie mooy grenade lañ yaakaar lañ yaakaar dóor ngeen tas il va falloir ñu trouver solution pour les grenades lacrymogènes mooy qualité bi trouver solution pour booy comme ñoom fetal la ñu am dañuy dóor ñoom ñu dañuy trouver solution yi man li ma fu ma nekkoon fa laa nekk ba léegi rek waaw li ma xam mooy góor doo yor yaramu xaal waaw ñu ne la mu dugg déedéet waaw te Macky Sall foog ñu ak moom xeex moo ku fi jëlee xeex cooki xeex ba dugg boîte vocale il faut ngeen bàyyi attention comme quoi que ñoom seen stratégie yëpp ñu ngi ko

par force barricade de feu, du gué. quoi qu'il en soit il faut qu'on s'organise pour dégager ces barricades là Et cocou liguer la lac, l'iguez dégue la lac. stratégie la lac. faut que djem jëm ak te ngeen xam ne moom fu mu taxaw nii ma wax leen ko ngeen xam ko ci prolongation lay wut prolongation deux ans yow match football boo xam ne yow danga nga am defet fan ngay wutee prolongation fan fan jabar ji moom dafa daw dem dugg Gàmbi xam ngeen fu ñu nekk xam nga dañ leen déniché ne leen ñu ngi ci benn hôtel Gàmbi mais déedéet Adama Barrow moo lax Adama baro ci hôtel ba ñu nekkoon gars yi dañ leen ciblé gis xam foofu Adama Barrow moo leen Adama Barrow moo leen lax ka toj dil bi. Macky Sall arrêté na ka toj dil bi Macky Sall arrêté na waaw ka toj dil bi Macky Sall arrêté c'est-à-dire ñoom xam nga motax Adama baro il faut que Gambien yi jël ses responsabilités waaw il faut que Gambien yi jël ses responsabilités quoi waaw. Euh, def say tooki doone ba pare rawale famille non nañu tok Sénégal ñom ñep nañu tok rek ñu dem j'ai écouté tristement Idrissa Seck ci RFI mais ma xamné rek c'est vrai quoi luko Ousmane Sonko wax rek dem foyer sa avenir politique ba mu yàqu yàqaat dem di si moo dal Idrissa c'est quoi c'est-à-dire il est très malhonnête cest un dire nit ku dul wax dëgg baaxul ci réew surtout réew kenn du ko dënk ay fenkat le club des menteurs là réew kenn du leen dënk loolu dama déglu benn interview boobu moom ak xaw ma RFI la ñu koy laaj mu naan xam nga c'est-à-dire si nga soxor i ñaan baaxul quoi oui Ousmane Sonko le citoyen oui Wadi, tout le monde est le chef de l'opposition <laughs> moom Idriss Seck bugul dëgg lu oui Ousmane Sonko le citoyen mais Ousmane Sonko avant d'être un chef de d'opposition le chef de l'opposition mais c'est un citoyen sénégalais kooku ñëpp xam nañ ko mais soxor gi ñu soxor ak bon gi ñu boñ iñaan gu mu iñaan Idrissa Seck ñuul kukk dafa iñaan bi ñuul dafa soxor bi il faut muy c'est un cadavre politique ambulant c'est un cadavre politique ambulant bilan. donc ba vous dégouler, d'abord, je c'est pas le peuple matuñu quoi pour le Sénégal quoi il ne réunit pas les critères je suis né pour devenir cinquième président Je suis mu ngi traîné mais nous devons nous focaliser au focaliser Nous moins. Nous nous le combat bi parce que man dama suis ni ko condamné Donc, il bàyyi ci donc. nit bala ngay barricade këram da ngay am këyit justice moo lay jox këyit te lii sénégalais ñoo ko war a jëndee ah du keneen de sénégalais ñoo ko war a jëndee quoi sénégalais ñoo war a jëndee barricade yi comme ni ma leen ko waxee dëmb rek te patriotes yi sympathisants ak ñi bëgg Sénégal gëm projet buñ ko wekk mukk ci benn plateforme buñ ko wekk ci Yewwi Askan bi buñ ko wekk ci F24 bu fekkee sénégalais ñun bëgg nañu sauver projet bi ñu xam lan moo ñuy xaar ak lan lañ bëgg fan lañ jëm bu ñu bu ñu xaar gaay bu ñu leen yaakaar parce que ñoom ñëpp ils travaillent pour Macky Sall Ibra Fall ziar donc euh, des fois di nga offense contre offensive nga dóor offense offense nga sànni say offensif nga dem dellu siwaat defarwaat am na ku même nervis yi sax ñu ngi jénn daw di jénn Dakar ay nervi ñi ngi daw di jënd Dakar ñoom bu ñu daw bu ñu daw alors diaspora bi danañu organiser wu de faw ñu organiser wu te fii le noyau dur c'est le diaspora pour le combat là le noyau dur c'est le diaspora ku ci nekk na nga wu xaaral quoi ma xool est-ce que ça parce que dafa femme lu ñu ma doon wax ma ma fàtte ko je vais essayer de voir si je peux joindre mhm. Euh, mhm. Euh, je vais voir je sais pas si dinaa ko mën a jot après je vais régler ça hors live bi waaye tey moom ça va pas quoi soj bi là. may sonal la waay waay góoma dinaa yàgg ci live bi de alors doom yi sonko dañu wara a dem def defem ak bac xale ni ngi len barricade xale c'est-à-dire non Sénégal non ñii dañ fi yor a jóge baaxuñu c'est mauvais les jeunes cest à di nga bañ nit bañ nit be ba doomam sa avenir xalé yi les gosses là ces gosses là on sait jamais mais nañ dem ci kanam je te jure. Bignoletier, de. duñu rëcc lii c'est son destin ñun la lamante wu rek mais ce sont destin waaw ci épreuve la nek. dañ ko gëm noonu Euh, seen stratégie li bëgg li may j'interpelle l'armée sénégalaise l'armée sénégalaise j'interpelle l'armée sénégalaise particulièrement Kédougou amul ben prison bi ngeen aménager pour Ousmane Sonko les militaires je m'adresse aux militaires le général chef d'état-major des forces armées Yola lay les prérogatives de l'armée, ce n'est pas pour emprisonner des civils. Aménager un camp pour emprisonner un civil. Déedéet armée militaire lay tëj comme ñun ñii teg brûlé nga xam ne benn ñaar ñu doon la biir dëkkuru nga dem tëdd nga jënd gaañ wax nga saagaat ndey mu delluwaat la ci biir waaw mais c'est pas fait pour les civils il faut que armée respecte Sénégalais Ils aiment am place ngeen jouer ce rôle mais si leen demee ba ñemewul rôle ngeen respecté les Sénégalais parce que ce qui se passe au pays là au Sénégal l'armée sénégalaise ouvre les yeux y a ngi xool. dañ de parce que des fois nit ki da nga dem ba en certainement foog ne dafa c'est-à-dire pour Macky Sall moom dafa war a éliminer toute la famille de Ousmane quoi c'est-à-dire Ousmane Sonko jabaram yi ay doomam quoi ñoom dañ leen war a éliminer rey ñoom gis nañ ko de ñu ngi toog wax ko fii ma ne leen amul légitimité boo xam ne la armée Sénégal di xaar peuple sénégalais armée Sénégal am fi mille occasions pour jënd ils ont pas fait Badou Badou euh, andil ma café sama soj bi daal euh, seet ko Ouais. Ouais. Hein ouais. Tey moom ça va pas quoi. Alors, vous savez moom bu jëlee njabootam sàcc alal réew mi ay doomam ñëpp nekk ay milliardaire ñeneen ni seen doom yi du ñu ay sàcc parce que seen baay du ñu ay sàcc ñoom ñooy sàcc mais dana jeex de xaw ma sept mois moo ko desee xaw ma huit mois moo ko desee xaw ma sept mois mais il va partir dana dem lii des rek mooy ñun sénégalais yi nañu organiser wu ndax ñu mën a tabax suñu réew ndaw ñi loolu de xeex bi fi mu ne nii euh, Modou Cissé <laughs> Modou Cissé <laughs> yooyu ngay wax noonu moom <laughs> yàlla baax na waaye Dieu est grand. Vous Ouais. vous faites famille may policier <laughs> ah c'est une cousine qui ngi fou. les cousines sont faites pour les cousins et les cousins sont faites pour les cousines Yo, un homme. <laughs> Macky Sall il est dos au de ñoom ñëpp man moom dama am li may xaar rek waaw dafa am li may xaar bu ci yàlla àndee bu yàlla defee mu sotti <laughs> wallaay gars yi ñoom ñooy daw si seen bopp ñoom sa ñooy daw si ñoom ñoom ñooy daw si ñoom ñooy daw si seen bopp mais nañ dem rek yàlla Karim la quoi yàlla baax na on on n'a qu'à s'organiser te xeex bi quatorze régions yi jëlal bi quatorze régions fukki régions ak ñeent cette fois-ci dañu war a jóg jógandoor la jógandoor ñanta wilal la ñoon naa kat région tànni naa ne si région su buróom Baba Kandia Ndiaye Doliprane mille mille 1000 C efficace ak citron bi waaye mom mom quoi ciao donc ben objectif la nañu focaliser wu te bàyyi xel kër cité góor gi nañu focaliser bàyyi xel kër cité góor gi tu prends toute une famille nga séquestre leen quoi te tegoo ko fenn justice joxu le këyit justice joxuñu la autorisation euh, vous faites ce que vous voulez quoi euh, Antoine Diome Euh, général Moussa Fall mais nañ dem ci kanam rek waaw wallahi nañu dem yàlla baax Dieu war a liggéey ñi ngi liggéey ci suuf parce que il faut que ñu libérer ces détenus politiques là dañ koy libérer quoi naka lañu wara def pour libérer ko loolu du luñu wax fi mais mais rebeus dañ ko wara toj teul kay jënd dañ ko wara toj teul gay jënd et on va s'arranger qu'à ce que tabaski <laughs> dina jafé Sénégal de parce que la ñu mën ñu ngi koy communiquer mal malien di leen wax dëgg waaw loolu la quoi Dai. Abbiamo messo dal qua. ben objectif rek la am actuellement ni suñu xex ci xam fan lañ ko wara concentrer pour tej barrage bi nek keur Ousmane loolu rek mooy yitte actuellement filmé. Faut ne fu il faut ñu organiser même les forces de défense et de sécurité ñoom policiers ak gendarme dañuy sonn Cette année, dire Macky Sall même kenn bëggu bëggatul Macky Sall fu mu non, nii ñoom ñoom dañuy sonn waaye Babacar Ndiaye je je me reposer quoi un peu. donc barrage bi objectif bi moy de point bi ne tej nañu bureau de vote yépp dañ ko tej Dakar euh, Touba quoi du politique donc Touba kenn du fa politique lañu wax wa kon investir quoi ah oui Donc, il n'y aura plus d'investissement en tout bas. Vous faites que bas, vous fait interdit politique. Quand l'argent du contribuable sénégalais, qui ne peut pas kenn du ko kenn waru ko Oui. quoi oui le bien, Waouh lépp waouh. man sama contribution yi mooy wax ne say euh, garage ñu toog di baax baax fee que ñoom si si si si kër góor gi ba ba ñu ko ba ñu ko ba ñu ko dégaadee gars yi day andi coow quoi xam nga tam day andi coow. waaw. Euh, boo xoolee xool gars bu ñu dégaadee gars yi foofu noonu ñu fi la toog dañu la fi toog ba mu seen ba mu seen ñëpp dina toog dañu fa barkelee foofu mooy problème bu ñu fa barkelee tamit bu yàggee waa koñ koñ bi si boppam la gars yi jaxase waa koñ bi koñ bi dinañu dinañu jóg indi indi coow li foofu man sama su ma xalaat daal waaw moo fi nekk. moo euh, fi xam ne mais xam nga xam nga barricade bi dafa jéggi dayo parce que dafa dem ba mu ba mu des jeunes xale yi dañu bëgg a jàng mënuñu jàngi ko xale yi dañu war def examen mënuñu dem examen ay soxnaam dañuy liggéey mënuñu dem liggéey.

gaa yi ñëw jóg jaxase waa koñ ba ak gaa yi coow coow bi bëri rek. <laughs> gis nga fu koñ bi waa koñ bi sax dëkkandoo bi waxuñu dara ba léegi mais bés bu xoolal bu ñu dégagé kii ba gaa yi commencé di kàmbi boobu waa dëkkandoo bi ñu commencé jaay rayonnement boobu nag ba coow rek commencé ñoom ak gaa yi ñu fa nekk. a wax Sénégal dafa dafa xaw a compliqué quoi. ñoom ak ñaan ñoom ak ñaan.

mais ñun tamit ñom droit bu ñu am ba ñuy tok revendique ñun droit bobu la ñu am pour dindi barrage bi quoi sëñ bi barrage bi foog mu deñ waaye ma ne ma ne ñi jàkkaarloog waa cité bi c'est tout ñi jàkkaarloog ñoom wala le problème ah c'est bon ba moy day tëj barrage bi da fay tëb

voilà comme nous, waa cité bi buñu da nga japp ne amuñu amuñu fayda ñun la duñu ñun il faut en finir avec ça parce que c'est illégal c'est injuste malé nous sommes des sénégalais ça sonal ak wa cité bi bu la sonal ak cité bi quoi ñu fa dëkk buñu kenn fatte ak wa cité bi quoi ñoom ku ci am li ngay wax nga denc ko sa poste parce que bu ñu leen di barricade ñoom jënd dama ne sawaay li ngay wax ni kenn du ko fi def ñun dañuy jëndee barrage bi ñu toog assuré comme Ziguinchor voilà loolu la quoi c'est-à-dire il faut barrage bi dañ c'est illégal ñun liggante ñu waa cité bi de parce que waa cité bi bu ñu amoon jom doom ñëpp du ñu nangu barrage bi duñu ko nangu ah voilà kon loolu la quoi ñun ci loolu lañ ne Tu ci loolu lañ ne barrage dañ toj cité bi li ñu cité bi la pour lan pourquoi ñuy pourquoi ñuy toog di calculer waa cité hein? yow cité du mais c'est parce que nit ki xamoo sa droit rek ñiy barricade noonu amuñu droit justice joxu ko kayit defuñu dara c'est-à-dire jaay dooleel rek injustice te moom Macky Sall moom moom moom amul fit bi Antoine Diom ñoom ñi def yëpp ak général Moussa Fall kenn amu ci fit jàkkaarloog Ousmane noo ko suufa ngi sa bët attention ku ci nekk xam nga ku man sa baay c'est injuste

du Ousmane moo leen ko teg ah déedéet Macky moo ko teg Macky Sall moo ko teg moo leen ko teg mais du Ousmane Ousmane tooñul kenn fa la dëkk seul tort bu Ousmane def mooy dama am ambition pour jiite réew mi jeex na na lii mooy faute bi Ousmane def dama am ambition pour jiite réew mi sénégalais jox ko bop loolu rek la de dana dañ naka lay kañ la mais dina waaw On partir parce que liggante ñu ay ñun li justice justice la soxla ci dëgg quoi dañu

nous avons une barricade comme ça ñu tek té ñom ñëpp ñi nek ci opposition bi yëpp bu doon seen kër la barricader mais tey anam dogo leen une ñom Khalifa nous ñom ñëpp dem nañu té bu bi mais c'est bien parce que ne jël responsabilité man parce que nous wara une responsabilité parce que nit boo parti na yoré ay militants yore non da ngay jël sa responsabilité waaw parce que waruñu leen moytu non il faut pas éviter pour moytu déedéet fii

te ñoom ñëpp kenn du ci déplacé bitim réew ces ministres là ces ministrons là kenn du jënd bitim réew amna déjà ñoo xamné ne cinq euh, euh, ci ay nit bi cinq trois ministres ak euh, xawma lan ñoom Ismaïla Madior Fall Antoine Diom Sidiki Kaba nga ñu jël général Moussa Fall ak Bokar Seydou Bokar d'après les dire ñom ñëpp fu mu ne ku ci jënd ku jënd ci biti ñu téygal sa ndey ci kasso bi dañ lay arrêté ça. là, quoi c'est ça le mooy li nga c'est nous sommes ñu ñor euh, ñi koy wax suñu mbokk malien né nañ leen yag naa leen averti na leen camion xar ko fi gis quoi waaw on pas on va pas voir ça ici ñoo c'est vrai ñom euh, ñom ñi ngi téy boy di arrêter rek waaw loolu yëpp ragal la rek parce que les Sénégalais di dund ci fukki at ak ñaar yi mësuñu ko dund ci benn régime amul amul amul de patriote fu nekk la ñu malgré ci bir armée bi y a des patriotes gendarmerie y a des patriotes police il y a des patriotes ànduñu ci li Macky Sall di def ànduñu ci mais à un certain moment il faut savoir prendre ses responsabilités quoi qui ne risque rien réew la dé ay bakkan réew la dé ay bakkan la ñuy fooye réew ay bakkan la ñuy dé faut que ni bëgg Sénégal gëm Sénégal jeunesse bi pas dem jël gal di dem de dañ ñi rek yalla day pas de xex rek ñom nak ñi ci sen tapalé ay dossier terroriste ak ak dialogue bi pour pour pour pour pousse

Assumé. assumer. assumer. assumer. Les cibles. Les gens, c'est fini. de Toc de voir cible. Non, non, non, non. Il faut que Diana. Diana. Non, non, quoi. Ah, Touba c'est un pays dans le Sénégal hein c'est tout hein Djamba. <laughs> même buñ ko éliminer dañuy voter Macky Sall mënul gagner l'élection c'est pas possible le problème de Macky Sall mënul gagner l'élection yi ça quoi ñun dal suñu mune focaliser wu baare talibi ben camion bu mu jógee Mali dugg ku bëgg a ñu dël ko cocktail molotov ñu fàtt yépp waaw vigilance rek xeex rek Ouais. Donc, euh, gagne. xam naa aime quoi parce que Madame Je defaru Je rendez-vous souba quoi souba. ma Je am jox recette la citron ak le je ak dakar, xawma lan quoi Mm-hmm. way dinaa ko jël citron bi ma jëm dem jël ay ay garab mm-hmm. defaru quoi comme ça on se retrouve demain incha allah euh. on <coughs> a hmm, gagné ok galsel la citron miel et gingembre Amna fi quoi donc dinaa ko def léegi nii tout de suite day tàng wala bu sedd bi la quoi ndox mi day tàng wala ndox mi day sedd Babacar Ndiaye oui -hmm. dinaa relax nag dinaa relax nag quoi noppalu tuuti peut-être deux jours lay wala benn jour mais xam nga rek léeg yi tar rek nga jóg quoi euh, tu hmm? loolu la quoi. ah. Abdourahmane Diallo wax nga so wax nga affaire kaldu kaldu bu saf sap ak kaane ak limon wax nga deug de suba de ma dem seeti fele wus wuti ay wasi yu mool oh, xam nga rek te moom sawar euh, alors donc waouh ziaré euh, mais allez merci les gars hmm? <laughs> Wow, c'est un sabotage, quoi. mais on a compris tout ça. Hein. C'est le jeu, là. Nous sommes là. non, non. Gagne. Wow, ok, nous faisons le diamant. Allez bien, merci, quoi. Madame, euh, c'est de faire euh, une citron, miel et gingembre. Wow, madame, de faire quoi, you know? Wow. waaw loolu la ko allez Mati jaajëf gaañi merci beaucoup xam naa ne moom bu baaxee rek suba